haa wala duniyaati haa wala duniyaati shukran shukran shukran shukran shukran shukran shukran shukran shukran ya mawlaaya sayyidi Muhammad al Shayqi sang yaanu yit ci sa leer gi yow yaanu nandal ci wala dunuyaati shukran shukran shukran shukran shukran shukran wala dunuyaati La région de Kaolack couvre une superficie de 4927 carrés. Elle est localisée dans la zone écogéographique du bassin arachidier et est limitée au nord et à l'ouest par la région de Fatick, à l'est par la région de Kaffrine et au sud par la République de Gambie. Historiquement, la ville de Kaolack trouve son berceau dans la zone d'emprise du royaume du Saloum. La ville, quant à elle, est une création coloniale qui a trouvé sur place le village de qui reste aujourd'hui un vieux quartier de la ville. La ville de Kaolack a accueilli des personnalités remarquables au Sénégal. En premier, les figures religieuses comme Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Agnès, qui fut très remarqué dans la Tijania au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Cheikh Abdoulaye Niass, le feu imam Hassan Sissé, parmi d'autres. Cheikh Ibrahim Niass est le fondateur de la cité Medina Baye, qui constitue aujourd'hui un grand centre culturel et religieux où affluent des milliers de disciples chaque année. On peut également citer d'autres autorités administratives de la ville, telles que le maire historique Waldiodio Ndiaye, une panoplie d'hommes politiques, Feu Sidi Lamignas, l'ancien directeur du groupe Walfadri, l'actuel maire Maria Massar, parmi tant d'autres. Sur le plan économique, Kaolac a été et est encore un centre important de production et de transit de l'arachide du fait de sa position géographique par les îles et delta du Saloum. Elle constitue une zone de rétention du sel, favorisant ainsi une forte exploitation du sel. Le dernier recensement de 2013 fait état de près d'un million d'habitants pour toute la région. Et Kaolac reste à la fois un centre religieux et socio-économique important du fait de sa position géographique stratégique. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Ah, alxalifa Ousseynou Ndiaye ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ah, macha allah ñoo ngi ñëw fii tey tey Kaolack ñoo ngi lay gis ndeysaan yaa ngi toog nii ak sa tenue sportif yaa ngi eh, ne eh, war a recevoir Mawla. Mohamed El maanaam ñu bëggoon tey nga ñëw fi nga xamante ne jaar nga ko si côté lumière jaar-jaar bi nga xamante dem nga tey ba découvrir Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh kon naka nga découvrir Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh ci côté baatin ci côté lumière bi euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ah, Cheikh Al Hadj Malick dëgg la euh, ñu ngi lay ziyaara eh, di di la nuyu di la ndokkale laaj bi nga laaj am na solo lool kan mooy jëmm ji tax man ci suma âge man ci fi ma jaar ci baatin ci li ma ci xam ak li ma ci dund ak ñi ma rencontre yi ma def yëpp ak bërëb yi ma def ay xalwa yu bari ba noppi ma ñëw di topp jëmm ji di Seydi Mouhamed El Cheikh laay Seydi Mouhamed El Cheikh mooy néew na dama lay wax ne la néew na koo xamante ne fii ci ñi ñuy wax ci sëriñ ci wàllu ñoo xamante ne boo tolloon naa ak ñoom jamono te duggantewuma ak ñoom ñenn ñi jotuma leen seeti parce que da dama dama leen a analyser rek jàll mais ñenn ñi ma xawoon sib sonn ñëpp dem naa ba ci ñoom ma seet leen seetantal leen waaye li ma doon wut dëgg te xiif ko bëgg ku ma ko jox dëgg dëgg dëgg dëgg ma naan ma doon ko wër ci ki nga xamante ne mooy ñëw ci dernier missionnaire bii ñëw jamono ki ma ko prouver ki ma ko won ba tax moom mu mu mu mu mu tey ma ma ma jóg topp ko amatuma cofeelu doom amatuma cofeelu jabar amatuma cofeelu ndey du cofeelu bàyyi lépp ma teg ko ci gannaaw moom rek laay wut cofeelam parce que am cofeelam mooy am cofeelu Mawlaay laay Ahmad Tijaan Chérif am cofeelu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan Chérif mooy am cofeelu yonent bi booba mooy am cofeelu yonent suñu borom subhaanahu wa taala parce que moom mii mooy imaamul mahdiyul muntazar te du fleur bu ma koy jeté parce que bu boobaa maa ngi lor sama bopp mais daf ko prouver ba lu ma doon yaakaar naan au moins kii war na maa jox quatre-vingt-dix pour cent euh, euh, déedéet daf may jox vingt pour cent daf ma ñëw jox ma plus que plus que cent pour cent plus que cent pour cent bi ma jox la woon mooy lan mooy doo bërëb yi ñi yi ma duggul xalwa yi ma duggul xalwa te dugguma woon xalwa pour xaalis man bu doon xaalis ay yeneen a nga fi ay xuraafaat ay lu dul jeex yoo xamante ne da nga koy def léegi bis bu nekk nga génne sa xaalis loola neex am say kaat kaat say lu ne loolu maa ngi moom te ku ko weddi ñëwal seet ci ma ma jox la ci boo xamante ne doo ko liggéey sept jours loo bëgg ci xaalis di ko am loolu taxu ma woon di dugg xal xalwa li ma doon wut mooy boroom jamono te borom jamono yi dama ca insister mooy ki mujj mooy kan al imaamul mahdi al muntazar kooku laa doon wut. la preuve man dem naa ba def sama istixaara boo xamante ne istixaara douze jours la ma def ko ci sama dund man ci sama li ma xam ci sama xam-xam yépp ba mu leer ma ne man dootuma dundati lu war mat sept ans te lekk naa deux ans yi mu de sama cinq ans te ci biir at mu mujj mi ca début ba ca laay génn àdduna loolu man def naa ko sama réglé ba mu réglé ba mu noppi première année bi ma ñëwee ci Seyd Mawlaay Seyd Mouhamed Cheikh la woo kenn ci xalifaam yi waxuma moom de ak ñenn ci ñi yoroon dossier yi ñu yóbbu ko nammaat sama at yii ba ma nekkaat gone gu ndaw maay bañ wax maay bañ cat maay bañ coow waaye mun naa def li gone yi def billaahi alladi laa ilaaha illaa hu may wax ak yow jantu tey bii laa la wax bu dul dëgg bu ëllëgee boo ma interviewé xamal ne dëgg la te loolu dossier boobu defu ko moom ay taal ay xalifaam la ko dénk ram su shahada ram su shahada bu saf sap jëmm ji yéen laa wax jëmm ji dama soxla dama ko soxla ba ak temps sangam soxlawuma lii soxla def leen li ngeen li ma bëgg ci moom romb leen fa dem yoonam dinaa leen bu bala ngeen a jàllale lii mun naa leen jox ñaari photo benn photo tey wala photo ne passée ak photo avant may ñëw ci laay Mawlaay ma Mouhamed Cheikh ngeen xool ko ngeen comparer ko te man aw ma docteur aw ma docteur de waral Kaolack gi ba mu daj aw ma fi docteur aw ma docteur lii ma leen di wax ci sama istixaara laa ko defe woon yooyu te yooyu ay détails la yooyu yooyu ay xalifaam sax dañ koy chargé nit ñu defal ko ko tegal boobu fee mais li mu prouvé te ñëpp gis ko mu nekk ci internet bi nekk fépp moom kay danga naan lii bu ma ko nangoo duma ma arrangé kii mooy kan ban kër la bokk waaye moom li mu def dafa ne fànn kenn du ko jeex. du Mali du Bandia Gara du Dege Mbere du Afrique bii fu ma fi warul foo xamante ne defuma fa lu mu néew néew néew néew quatorze jours yi xalwa amul te benn dëkk dinaa fa dem jël ci raison yu bari def ko fa dellusi si ba ci Sénégal gi léegi mënutoo am ma dugal la xalwa su ma ko defee rek <laughs> damay dama dama nekk ci sama salaatu faatiha donc jeex na jaamu sama borom wala ma saxoo jërëjëf yaa Mawlaay Seydi Mamadou Seex xalwa suba ba ngoon ñaari fan wala ñetti fan ñeenti fan jërëjëf Mawlaay Seydi Mamadou Seex parce que mooy jërëjëf Seexu Tijaan jërëjëf Seexu Tijaan mooy jërëjëf yonent bi jërëjëf yonent bi mooy jërëjëf suñu borom ah macha allah alxalifa ah, jërëjëf si kàddu yi tedd yi nga xamante ni aussi yëkkati nga ko mu nekk vraiment histoire bu émouvante ak jaar-jaar bu bu yéeme si côté leer si côté baatin pour nga dem découvrir borom jamono. instant bi nag xam naante ne yaa ngi si organisation bi ak ku la gis neesan ak sa tenue bi nga xamante ni toogoo benn yoon ñu bàyyi la rek nga dem si organisation bi nga dem aussi pour recevoir euh, le missionnaire de Akhirou Zaman de Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh. waaw dëgg la parce que ñu ngi ko a jëli. Mhm. Eh, lii mooy sunu dund buñ ci nekkee subaak ngoon ñu ngi ci liggéeyi mission Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif xam-xam bi ci gën mooy ilmul yaqiin gëm-gëm bi ci mat mooy xaqul yaqiin kon faw ñu ànd ak borom leeru ilmul yaqiin di almahdi ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu déglu ko si Waladun Yaati mu nandal ilmul ladani si géeju leeru Waladun Yaati géeju leer gi mën a nandal ruux yi ko mooy wala dunyaati yow sang bi ñu teewlu ko si Imam Mahdi Imam Mahdi. salaamaaleykum sunu mbokk jullit yi sunu mbokki téléspectateurs yi euh, tey wala dunyaat yi dafa ñëwoon fii ci Kaolack euh, fekk si fii sang bi Seydou Mouhamed El Cheikh mu ñëwoon fii. dans le cadre des tournées nationales xalifa góor Ousseynou Ndiaye euh, daal di koy dalal. ñun dañoo seetlu sang bi depuis sa anniversaire ba léegi dafa danse. Hmm. ndax. néew nañu gis en l'espace de deux mois euh, boroom xam-xam hmm. wax ni nit yàlla bu indi plusieurs thématiques aussi variées et aussi différentes hmm. sunu téléspectateurs yi ñu xool daan ko gis à travers leur écran ne wax nga ci secret d'Allah hmm. wax nga ci yonent yàlla Souleymane alayhi salaam yonent yàlla Ibrahima et les enfants du paradis ñëw ak nga ñoom si histoire Zul Qarnayni Sayyidatuna Mariama ñëw nga ci xaadir mhm. zulkifli iwàcci nga xam ne si moom si diggante moo nekkoon si jamono yant yàlla Noé nga mhm. indi beaucoup de révélation mhm. ñëw nga ak ñun si euh, ruux ak euh, safara ñëw nga ak ñun si yant yàlla saalih si ñëw nga si prophétie ci wilaya ñëw nga ak ñun si ajaratul aswar destination finale ñëw nga ak ñun si yant yàlla Moussa ñëw nga ak ñun sur xare Badar ak les événements invisibles. nga mhm. xam si moo fa xew. ñëw nga ak euh, mhm. Mhm. ñëw nga ak ñun si siège u Seydi Ahmad. sallallahu alayhi wa sallam ñëw nga ci siège u Maulana Cheikh ñëw nga ci Seydina Alioune ak mission Imam al Mahdi. ñëw nga ak ñun si différence lan mooy compagnon ak disciple. ñëw nga ak ñun sur l'ange de Euh, wax ñu secret yi nekk ci buy jël ruux doomu aadama yi. Mhm. ñëw nga ak ñun si xadaratul juma. Mhm. gis nga bi ñu demoon tey sang bi dañoo gis ni 21 la ñi nga xam ne suñu moom la ñu tënk ni depuis anniversaire ba léegi. Mhm. yaa ngi koy waxtaan donc indi nga beaucoup de révélation ci cadre yu bari. léegi ñoom benn jàngat dafa mel ne sa mission révélation daf ci am une grande part. bu xam-xamu livre ndax yëpp boo gëstu woon livre yi nekk àdduna bi yëpp duñ ko ci gis. donc révélation la ñu bëggoon sang bi nga wax ni sa mission lépp dafa tegu ci cadre révélation la bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alhaq bilhaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaarihi alazim tabaarakallahu maa ngi nuyu équipe wala duniyaati yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp dañu leen di seetaan ak ñi nga xam ne ñëpp tabaarakallaahu ànd ngeen ak ñoom ci liggéey bi di leen remercier ci ñëw bi ngeen ñëw ci tournée nationale Kaolack bi ak question yi nga xam ni it jot ngeen ñu ko laaj ak remarque yi ngeen jot a def euh, remarque yi ngeen jot a def dégg naa li ngeen lim yëpp depuis anniversaire bi 10 avril ba tey ji nga xam ni ñi ngi samedi le 15 juin 2019 li nga xam ni jot nañu ko ci jàlle ci xam-xam donte liste bi yaatu na dafa am bu ngeen tudd te mu dàqal ma ci liste bi te mooy da ngeen ni waxtaan naa ci mission imaamal mahdi mission imaamal mahdi li ma ci waxtaan lenn rek moo ma ci gën a neex te damay bëgg àdduna yëpp doon sama témoin Sénégal même doon sama témoin parce que bare na zaman bii ñëpp ñu ngeen dégg ci internet bi ñii ni Seydi Mouhamed El Cheikh mooy imaamal mahdi ñii ni non warul mën a doon moom may joxe benn benn éclaircissement dama wax ni. ñi wax ñëpp ni man maay imaamal mahdi bis bu ñu gisul yeneen yenent yàlla instant ibnu Maryam laa wax wàcc Damas ñëw julli sama gannaaw bu leen neexee nañ ma weddi bu ñu gisee loolu dañ ko nangu waxuma waxuma juddu roxaani yu de mm-hmm. dama ni mm-hmm. ñi wax ñëpp teg ni ñoom dañu gëm ni man maa yore mission imaamal mahdi mm-hmm. dama leen di jox rendez-vous ni leen nañu toog ba gis yenent yàlla Isa alayhi salaam wàcc ca Damas Isa ibnu Maryam ñëw julli sama gannaaw bu boobaa ñëw ñëpp nañu gëm su loolu amul nañu weddi mission Imam al Mahdi du naxaate Isa ibnu Maryam day wàcc mm. day wàcc Damas laa wax mm. ñëw ba ci ginnaaw Imam al Mahdi ni ko hadis bi waxi julli ci gannaawam mm. waxtu julli suba waaw jox naa ñëpp rendez-vous nañ xaar lool waaw ñun duñu wax mukk ci basé wu ci roxaani yu bii wala jàll na wala lee dama ni mahdi ak insa dañuy ànd isa ibnu mariam fii ci àdduna ñoom ñaar di doxal mission bi ba imaamal mahdi jóge fi insa toogaat fi yeneen deux ans soogay dem insa dina fi nekk neuf ans moom moom mu nekk fi sept ans après la descente du prophète insa nañu xaar loolu man li ma gëm mooy xàqul yaqin nañu xaar loolu nañu xaar it ba mu jóge màkk 2019 nañu xaar lool. man li du ma joxe mukk lu passé wala woo benn euh, conseiller naan ko wutal ma benn dossier pour buy prouver mission déedéet. sama mission man maa koy prouver sama bopp. lu ma war a dox maa koy dox lu ma war a wax maa koy wax lu war a xew maa koy yëgle. balaa buy xew. bu ñu weranteeti ci imaam al mahdi Insa ibnu Maryam day wàcc. julli ci gannaawam nañu xaar lool. ñi yàlla dimbali ñëpp attan nañ ko fekke ndax yàggatul mm. waaw na ñëpp xaar loolu mm. loolu nga tudd yëpp ci remarque yi baax na mm. ay révélation la mais bii nga tudd il fallait ma repondre ci côté boobu ndax dafay lu am solo ndax réew mii di Sénégal kenn du fi naxaate àdduna kenn du fi nax kenn lépp ci xàqul yaqin lay doxe loolu daal laa bëggoon indi ci sa remarque la nga wax yëpp rëy na waaye man côté bii daal moom laa bëggoon a souligner macha allah waaw comme dañu nekk ci cadre mission universelle. Mhm. Euh, dañoo jël ay mbokk taalibe. Mhm. yu nekk ci diaspora. Mhm. ñoom bi nga defee révélation yëpp. kenn ku nekk amoon na question bu la bëggoon posé. suñu téléspectateur daan lañ daan gis seen image. ak seen nooy pronom yu défilé ci euh, écran bi. comme bu newee ci Maroc gis nañu soxna Aïda Keïta. yóbbante nañu question. nee na euh, chaque fois daf lay dégg ngay wax maa ngi leen di jox rendez-vous mille vingt deux. patience ba 2022. Mhm. mu doon laaj ci euh, lan moo nar a xew 2022 pourquoi pas 2018 2019 2020 mais pourquoi 2022 lan moo fa nar a xew. man li ma wax yëpp dafa neex a vérifier même si internet ndax mi ngi ci. 2022 mhm. ci atu jullit. ci atu jullit l'an 1443. man si laay am. 40 ans di ñeen fukki at ñu toppoon at bii nga xam ne ñun moom la ñu miin ci 10 avril yi dañ naan kon le 10 avril 2023 laa war am 40 ans mais atu jullit la yàlla di jàpp moom la yonent bi di doxal ci dans 2022 ca laa war a am 40 ans mission bi début am yëpp ci 40 ans la waaye dama waxoon ca dakaar mu leer naa ñu mi ngi ci internet dama ni luy xew 2022 ci 2019 dafay leer loolu laa 2019 maa ngi jëm màkk dama ni luy xew 2022 waxuma kenn négal rek ba boobu dama ni day leer même ci 2019 loolu laa wax waaw kon lu fay xew lu nekk xaqiiqa baag leer gaag lan cay jàngat baatin ba lépp lenn lu ca nekk danañu gis melokaanu loolu ca 2019 te defe naa ñiy analyser année bii di 2019 commencé nañ ca gis lu bare waaw kon bu dee moom réponse am loolu laa koy loolu laa koy tontu comme réponse moom pareegu am na une deuxième question euh, nee na dégg na say taalibe di wax la révolution des lumières waaw te euh, bari na lu ñu dégg ngay wax euh, lumière mu ne révolution des lumières mooy lan ak i tamit euh, lumière boobu nga wax est-ce que lu bees la si taarix étudiant mhm. wala dafa am spécificité bi nga xam ni si moom la sa mission àndal ba ñuy wax révolution de lumières loolu fu ma koy delloo mooy moom dina ma déglu dama koy delloo moom question boobu ni ma ko koy delloowee mooy amul une semaine moom mi laaj question bi amul une semaine woo na ma ni ma dafa dafa doon julli salaatu tasbix dimaas mu sujjuut bëgg bëgg yëkkati boppam ñu téye fa boppam sayyidatuna Maryam yaayu Isa ibnu Maryam ni cëpp ci kanamam ni ko Seydi Mouhamed El Cheikh lu mu la wax dana ko def waaw moom moom moo tax ma delloo ko loolu mi ngi may dégg waaw ku bëgg gëstu loolu woo ko moom dana la ko wax moo ma ko wax de il y a une semaine mm-hmm. lii ci salaatu tasbih mm-hmm. nee na sayyidatuna Mariama téye boppam mu sëgg mm-hmm. mënul siggi mu siggi xool ko mu ni ko Seydi Mouhamed El Cheikh lu mu la wax dana ko def wax ko lu bari ci mission bi loo xam duñ ko détaillé fii waaw kon defe naa ni moom buy posé day posé noonu waaye ñun ñi ñu nekkal ñëpp li ma wax ba léegi ki la mënul wan yonent bi mënul a wan Cheikh wutil wasila bu la ko wan waaw léegi dañuy dem ba Belgique. bu fekk fekk ñuy wax Pape Sène. Mhm. suñu téléspectateurs yi ñu ànd daanu gis image ci euh, écran bi. Mhm. Euh, moom daf ne peut-on considérer le monde shahada. Mhm. monde xayb monde xayis. est-ce que tous les autres mondes comme des mondes parallèles. est que monde yooyu ngay jàngale est-ce que ay monde parallèle la. wala déet. xam nga moom sa dépend na muy déggee monde parallèle. ndax ñun boo demee ci xayb ñun dañu jël monde shahada. tënk ko ci benn organisation jël mondo xayb tënk ko ci beneen organisation jël baatinul baatini tënk ko ci beneen organisation jël baatin tënk ko ci beneen organisation jël zahir tënk ko ci beneen organisation boo demee ca alxaysiya dem ca albast yeneen réalité xaqiqa la yoo xam ni nit mën na miin xaqiqatu muhammadiya te du ko visiter ndax ay espace la yoo xam ni dañ ko restrendre du ku nekk moo fu mën a am accès gis nga àdduna li mu ëmb ci wàllu mystère dafa bare xam nga defoon naa fi waxtaan tuddee ko à la découverte des sept ya il deux ans ba léegi mi ngi ci internet bi ma tuddoon ca benn doj jabal xaaf waxoon ko am ñu ni noo warul mën a nekk yàggul am na kilifa gu def waxtaan ci koor gi wax leen jabal xaaf ak na nitu yàlla yi demee waaw kon man lu ma wax am na ñu koy prouver ñu nekk ci monde shahada waaw problème bi nag mooy dafa am ñoo xam ni ñoom dañu am accès foofu ak ñi nga xam ne amuñu accès foofu waaye mënuñu ko tuddee ñun rek monde parallèle ci ñoom ni ni jàppee monde parallèle ndax ñun lu ci nekk manuel ba ca xay ba daf ko régir ñu tërale ko nii yii am seen wàll am seen organisation am ñu fa mën a dem yii am beneen wàll am beneen organisation am ñeneen ñu fa mën a dem kon nag tant waa xëy bu ñoom nañu ko jàppe te man personnellement noonu laa ko jàppe mënuma tëb rek ni leen monde parallèle la parce que ñoom nii la ndax moom xaw ma moom lan mooy définition am ci monde parallèle waaw te nit kenn du ko atte ci philosophie am da ngay wax sa philosophie yow te bàyyi ko philosophie moo tax dama koy delloo moom question bi waaw bon dañuy dal euh, Maodo Malick nee na yaa ngi waajal euh, pèlerinage. ci euh, année 2019 bi. mu ne ban conseil ak recommandation daal ngay jox ki nga xam ne si war na def cinquième pilier euh, de recommandation yi ci ñaari côté yi la benn bi mooy ki nga xam ni mi ngi mi ngi dem màkk aji na fexe ba kóllëre ga mu seq ak boromam mu motal ko ba noppi balaa muy dem. na fexe ba kóllëre ga mu seq ak moroomu jullitam mu motal ko ba noppi balaa muy dem. na fexe ba la koy yóbbu màkk nekk jaamu yàlla te bañ doon puukare kooku moom recommandation boobu laa koy jox recommandation bi may jox ñeneen ñi nga xam ni demuñu mooy samay mbir ku ne na xippi bëtam tey xool ku yore wér du tarixa tijaaniya soo mënul wax sama mbir lu baax maandul ndax mbir maa ngay gën a leer te yàggatul waaw kon ku toog di seetaan ak di déglu moom loolu laa koy wax su mënee mu maandu su mënul mu noppi ca te jël kurusam waaye képp koo xam ni dugg nga ca wax ca loo ca waruloon wax ëllëg danga delluwaat ca kalaka waxoon wala yow ngeen nekk fa di poñante ak di xuloo ndax mbir yi dafay leer naññ na jantu njolloo waaw mbir yi benn nit du jóge fee di ko dëggal wala di wax noonu la nit ñi soog a cay àdd mbir yi boroom ma nga xamee ni moo di yàlla te jël mission bi di mission boppam na mu daan joxe yonent yi mission jël wali yi jox leen mission kenn ku nekk am luy sa mission mission universelle bi nga xam ne ñëpp xam nañ ni mooy mission buy def àdduna boroom boobu di yàlla mën ñëpp mën a fépp te amul kenn koo xam ne mënal na yàlla leen yàlla moomu mooy doxalal mbir ma boppam ba mu leer nañ mu tekk ca loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tekk ci loxo Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif ñu ànd ñoom ñaar ommatu yëpp di di joxe directive yi mission yi di dox. kon ku toog di di xaar màkk la ma lay digal mooy soo mënee jàng sa salaatul fatiha jàngal soo mënul loolu bul dugg mukk ci débat boo xam ne ëllëg daf lay jural yeddaange waaw. macha allah xam naa ni euh, yaa ngi yaa ngi waajal programme. Mhm. suñ dañuy question rek dafa am ku ne dafa dafa seetlu ba wax daal doo doo téye doo téye euh, doo def discours da ngay ñëw noonu rek waaw loolu euh, mu jaaxal ñu ndax fan nga tippee sang bi. xam nga kuy téye kayit ku nekk da ngay dem ci roq ñu bindal la. Mm. wala nga am ci koo basé wu. xam-xamam doy la ci téere yi nga téye kayit mm. man benn xam-xamam a doy. Mm. man du ma man man du woon dara la le passé laay wax de man du woon dara waaw ndax am na ñoo xam dañuy wax non da nga war a wax rek man du ma dara déedéet man man duma ma tuutil ma Mawlaa Cheikh ma Tijaani waaw cheikh du jël mukk leeru salaatul fatiha jox ma si ma toog naan la duma dara duma ko wax damay wax du ma woon dara balaa Mawlaa Cheikh di ma jox salaatul fatiha ba ma ko joxee tibbal ma ca leer ya leer ya la ca jiitu xam-xam la wax naa ko léegi ca dënnu yonent bi lay balle tàbbi ci moom mu jàllale la may def mooy moom mu may wax may jottali te defe naa ni nag Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ku muy wax ngay jottali miinuñu la ci tiim kayit Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ku muy wax ngay jottali duñ la miin ci tiim kayit ndax lu tax kàddoom xëjul ci kayit Baay mii ñu nekk ci dëkkam nee na xam-xam nekkul ca téere ya ma nga ca dënn góoru yàlla ya waaw góoru yàlla ya lañuy ñuy la ñuy tànk di ko naan mooy la nga xam ne mag leen di dikkal ca ilmu la waaw ñoom ci xaqiqatu muhammadiya boobu ca la ñuy naane bu ñu naanee ca lañuy wax kenn ku nekk nag buy wax dafa am loo xam ni dafay jottali ci moom dafay jottali ci moom gis nga boo seetloo ñu bare seen xam-xam dafa am fu mu limité wu rek waaye yonent bi ci jamonoom mais Xuzayfa ibnu Yaman mais pourtant moom moo daan wax yonent bi naar fekk yi Xuzayfa ibnu Yaman moo daan wax yonent bi naar fekk yi dugg ci mission bi moo ko daan diw de bokkul dafa dafa dugg nii rek diw de bokkul yonent bi am benn bis mu demandé boppam benn xalaat bu ko dikkal ni waaw nan la Xuzayfa mën toogee man yàlla dénk ma wax yu war ma wax sama entourage ak ñi ci infiltré wu ñëpp yàlla jaare ko ci moom moom moom muy ñëw muy ñëw moom moom Xuzayfa di ma di ma wax naar fekk yi yàlla répondre ko ci côté baatin waaw xamal yonent bi ni ko wa moo jeex nubuwa jeex na yow yonent bi yaay la dernier des prophètes waaye wax yu jeexul ba léegi ku neex ma jël wax yu def ko ci yow di la di la renseigner waaw wax yu bu mel noonu laa def ci Xuzayfa di ko renseigner muy xool naar feq yi kenn par kenn di la wax kii bokkul kii bokkul nubuwa nag jeex na ndax yow yaay la dernier des prophètes kon loolu déjà analyse la boo xam ni bu pertinente la mais malheureusement la majeure partie ci ñi nga xam ni ñoom dañuy faral di wax jàng nañu lu nu gisul lu nekk ci téere rek dañuy tëb weddi ko alors que li mag ñi denc seen dënn nekkul ci téere moo ëpp lu nu bind ci téere kon côté boobu ñun lañu la ñu ca mën a wax mooy lumière su xasee ba nekk ci nit yàlla da koy tijjil benn bunt bunt boo xam ni nag ci bunt boobu moom mooy base base spirituelle day am base spirituelle day am gis nga ni nga gisee tey militaire bi toog ba yàgg ni la maa ngi retourné ci dellu ci caserne bi kii ni non maa ngi dellu ca base bale noonu la base spirituelle amee ci nitu yàlla yi soo leen laajee lu ñu xamul ñu dellu seen base spirituelle seen base spirituelle bu ñu ca duggee lépp luy xam-xam boo xam ni day dellu ci xatmiya bi fa lay génne luy dellu ci xatmiya bi fa lay génne ndax ka toog ca buntu base ba moom base ba mooy Mawlana Cheikh Ahmad Tijani te Cheikh Abou lu mu xamul Cheikh Tidiane Chérif amul lu mu xamul loo moo tax lu jëmmu laaj moom boo delloosee ci moom mu ñëw wax la loolu lan la soo ko waxee noonu lay nekkee dëgg noonu lay rafete noonu la ñëpp di yëgee ni lii kat xàqul yaqin la ndax du doon xam-xam rek bu bu nopp di dégg ak xol mais rox moo koy dégg te ruux nag lu mu dégg dëgg la ruux lu mu dégg dëgg la xam nga ñu bare lu lu tax ñuy gëm ba yàgg weddi mooy seen rox day nangu dara. ñu jël loolu rox ba nangu dem di ko yóbbu ca xel ma xel ma commencé cay xalaat iblis ñëw dugg si jël xel ma ni ay tappale la ñu weddi mais boo doyloo woon rox ba rox iblis amu ci accès xuli ruuhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalilan yàlla yóbbuwu fa iblis xel nag mën na yàqu moom ba contaminé xol ba xol contaminé rox loolu ma naam mais iblis ci xel la mën a jaare pour yàq su demee ba am accès ca xol ba mu dugg ca xol ba yàq waaye nag rox ba amu fa accès léegi nag lay yóbbu musiba boobu ca rox ba mooy jëmm ja moom mooy xel ma am na feebar contaminé na xol ba xol ba dem na contaminé na rox ba moo tax nit day doyloo roxam rox mooy yëg-yëg ba boo yëgee dëgg xam nga ko boo yëgee lu dul dëgg xam nga ko xam-xamu dëgg ñëpp ko xàmmee moo tax nitu yàlla yi même boo leen contré daa leen déglu xam nga lu tax boo sa nopp bañoon leen déglu sa rox moo leen di taataan waaw ndax ñoom dañu ame ñaari communication dañuy wax ci shahada nga dégg leen su la neexee nga ni duma leen dégg ñu bàyyi ba ngay nelaw ñu ñëw ci baatin wax ak yow loolu mooy nitu yàlla nitu yàlla du rek dafay woote ni jox leen ma micro ñu jox ko micro mu wax ak nit ñi pour ñu dégg ko ku ko bañ dégg day bàyyi ba nga tëdd ni yaa ngay nelaw mu ñëw wax ak yow soo nee noo mënoo accès ci am accès ci espace intermédiaire yooyu c'est parce que sa wilaya des na loolu mooy réalité xaqiqatu ahmadiya ak xaqiqatu muhammadiya waaw jërëjëf euh, oh. euh, sang bu euh, wala du ñu ma woon maa ngi santaat waa wala duniyaati yëpp ak équipe bi ñu àndal yëpp tabarakallahu di leen ñaanal yàlla mu taxawu leen ci zahir ak ci baatin yàlla mottali seen yéene yëpp ba message bi nga xam ni moom ngeen di véhiculer ci àdduna yëpp ba mu daj ñëpp mën ca jot te ñëpp mën ko dégg ba ñëpp xàmmee ba ñëpp xàmmee waaye ba ñëpp it ràññee waaw ba ñëpp xàmme waaye ba ñëpp ràññee waaw parce que ni ñu koy waxee rek jamono jii nuy dund di aaxiru zaman woote bare na lool ku nekk ngay woote cër bu ne waaye cër bu ne am na borom waaw ku nekk ngay woote cër bu ne ndax aaxiru zaman la mbee cër bu ne am na borom waaye woote bu ca nekk dafay feeñ ci shahada waaw man ba ma jógee ni mission waxuma mission rek tëdd dama jóg di di jàngale xam-xam yu leer naan yoo xam ni bis boo ko dindee la ma mën a waat mooy doo am loo ca teg beneen bay ñu gis ma ma nekk ci fii ànd ak yéen ci mbooloo yi toog ak yéen ci malaanu wasifa gàddu sama yat bi ànd ak yéen ci tournée nationale yi kon mission laa yore loolu mooy prouver lépp loo woote na ko prouver sur le terrain ñu gis ko waaw internet day jottali wax rek waaye li ci des nit kaak fullaam nit kaak énergie am nit kaak kàttanam moo war a dox le terrain wane ndax yonent bi yëgoon na ni wooteem dana daj fépp te ma nga daan nekk ca kanamu xare ba taxaw waaw te balaa buy xare xamoon na ne xare ba di mujj yàlla xamal na ko waaye ma nga taxaw ca kanam ànd ak saxaaba yi saxaaba yooyu nag ñoo doon ngand yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp mission it seen barke ma nga ci waaw kon daal lu may digal ku ne mooy mission bi mi ngi nii du mission Seydi Mouhamed El Cheikh mission yàlla la yonent bi tarixa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif képp koo xam ni bëgg nga ànd ci mission bi te jël nañ la bépp buntu nga ànd ci ndax mission bi kat yomb na ànd waaw mission bi yomb na ànd mission bi du demal dajale ay millions indi du demal wutal ñu tool di ko bay du demal wutal ñu benn mbaar ñu ci féexloo déedéet mission bi lan la na ñu bokk malaanu na ñu bokk malaanu xadara nañu waxtaane leeru Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani nañu dëggal kenn bi yàlla na ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu lal malaan ba malaan ba wër àdduna loolu mission bi soo amee pas-pas daa ko mën soo amul volonté bu yóbboo nga dem toog te xaar ñu waaw soo amee volonté mën nga ànd ak ñun soo amul volonté toogal xaar ñu malaan ba daan ka lal ba lal ko sa buntu kër su boobaa danga nga mën a génn bokkuñ waaye dinañ ko lal ba mu wër àdduna ci barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaan ko waaw وبطه حسبي بشيخ حسبي به وبطه حسبي بشيخ mbokki jullit mbokki taalibe Tidiane mbokki mahlisien ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ñëwoon ci suñu tournée nationale mu doon dëkk kaw Kaolack doon dëkk boo xam ne kenn du ko présenté ndax mooy dëkku Baye Niass tey nag ñu ñëwoon di fi dalal góor gu tedd xam naa dañ koy bàyyi rek pour mu présenté wu. Hmm, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe cheikh yi ñu ñu bokkal cheikh na Tidiane Chérif yëpp fa tabaarakallah di leen ziyaara di am mbégte lool ci répondre question yi nga xam ne ñu ngi ñu koy laaj. fa tabaarakallaahu ñun maa ngi tudd imam Cheikh Ba dëkk Ross Béthio e, nekk imam si jumaay Sëriñ Abbas Sall bu Ross Béthio fa tabaarakallaahu e, bokk ak e, Seydi Khalifa Xuseynu ñu bokk wasila bokk sëriñ moom moom muy xalifaam fii ci Kaolack man may xalifa Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh fële ci Ross Béthio ah, macha allah macha allah yaa Seydi bëggoon nañoo xam ci wàllu mbokk googu pour booñ ci mënee faram fàcceel tuuti rek pour ñu mën a xam ba xam ci mbokk gi ci zaahir la waaye tamit ci mbokk gi ci wàllu lumière lan moo def ba yéen ñaar ngeen tase bokk ci jëmm ju tedd ju ñuy wax yaa Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh. waaw euh, tabaarakallahu xalifa Ousseynou Ndiaye yàlla daf ñu yàgg boole. ndax man bi may nekk eh, ci daara ji sëriñ Cheikh Diouf ci mbuur di jàng alxuraan xalifa ah, Ousseynou Ndiaye moo fa nekkoon suñu magu daara moo nekkoon suñu magu daara yàlla def ma taqoo ak moom mu nekk sama xarit lool moom ci boppam sax moo ma jàngal bind moo téye sama loxo jàngal ma ba ma mën bind bind bu rafet macha allah yàlla dogal sunu sëriñ boobu way juróom góor di sëriñ Maxtaar Ndiaye moo ko mayoon soxna ku ñuy wax soxna Seyda Aram Ndiaye yal na leen yàlla yërëm fa tabaarakallaahu eh, ñooñu man nag sama sëriñ ki ma jàng alxuraan daf ma joxoon sëriñ Makhtar Ndiaye muy papay xalifa Xuseynu pour bu ñëwee Mbuur di def si ay ah, wàllu sëriñam ak yooyu ma dem fa di ko bindal ak di ko jàppale ci mbiru boppam loolu moo ma xamale ak papay Xuseynu eh, yàlla dogal ma jóge ko fa laxas jóge Mbuur ñëw Kawlax fekk si papay xalifa Xuseynu Ndiaye di sëriñ Makhtar Ndiaye bi ngir tarbiyu ci moom ndax tur yàlla yi ma gisoon ci moom ak wàllu yàlla bi ma gis ci moom ak leer gi ma gis ci moom euh, loolu moo ma moo ma woon ma laxas tàggu sama ay wayjur ñëw ngir tarbiyu ngir sàkk ku lu ma yeggale ci yàlla ak loo xam ni eh, danaa ci am gindiku sama diggante ak sama borom tabaarakallah loolu moo ma indi Kaolack depuis 1983 laa fi ñëwoon ma nekk fi ak moom di ak góor gi léppam nekk ci sama loxo mu tarbiya ma ci tarbiya boo xam ne bu baatin la bu macha allah ba 1990 laa fay bàyyi ko. fa tabaarakallaahu Ousseynou euh, nag mën naa wax ci moom ndax na mu nekkee woon sama magu daara foofu noonu la nekkee sama magu daara fii. tabaarakallaahu li ma xamoon ci moom yëpp mooy euh, jàng jàngale jaamu yàlla gëstu wàllu yàlla. waaw fu nekk dugg na fa ngir xam yàlla ngir am wusulu ilallah ndax dafa am loo xam ne bu ko ruux gi maree. sa ruux bu maree eh, bu maree leeru eh, yegg ci yàlla eh, dootoo mën a téye sa bopp fu ne danga nga fay fërfëri di dem loolu moo waral Ousseynou fu ne dugg na fa nit yàlla bu ne jàng jëflante na ak moom waaye bi ko yàlla dajaleeg Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh nag ci la ma woone ma Cheikh la ma doon wur wut wut wut gis naa ko la ma doon wut am naa ko muy Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh kooku mooy xutbu samaanu jamono bi ma ko waxee man ka man de maa ngi si man tamit maa ngi gëstu ndax am na ku ma yàlla di woon waaye ba léegi tegaguma ko bët fa tabaarakallaahu eh, comme ñun day jàngkat lañu am nañu xam-xam lu ñuy def dafa am ci dalil yi ñu koy teg ma ne ko man ba ma dalee def listixaar yàgg na depuis 87 maa ngi def listixaar am na ku ma yàlla di woon koo xam ne si baatin gis naa ko moo ma jox garde tariqa bi eh, gis naa ko ci sëriñ Mansour si mu wax ma ni ma du ma moom du sama sëriñ kooku mooy sama sëriñ la gis naa ko it ci ay anam yu bari waaye ba léegi tegaguma ko bët xamaguma kan la ci laa continuer def samay listixaar ba yàlla dogal 2018 bi ci la ma ko yàlla won won bu leer nañ ci ginnaaw buñ ma wone ni eh, ñaar yu ma gént gis leen ñu ni ma eh, kii mooy xalifa Mawlaay Seyd Soxna Tijaani Chérif ci kaw suuf kenn ki di ndaw kenn ki xaw ko féete mag mu jox ma jëmmi Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh ak xaritam bi di Cheikh Basir Diouf moom la ma jox gént alors ma continuer waaye ba tey xàmmeewu ma kii kan la daniel gént bi ma ko mujjee gént ci istixaar bu ma defoon ci sa nurihimu ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xataa yatabayyana annahu lxaq ma def ci ab lim laaj Mawlaay Cheikh na Tidiane Chérif ni ko kan mooy sa xalifa ci ci kaw suuf ndax bëgg na am kilifa bëgg na am sëriñ fa tabaarakallaahu yàlla woon ma nag gént bu leer comme xadara bii ñuy def ni Kaolack tey ni ñu defee tànt bi ak sijaada yi ni ñu lalee sijaada yi moket yi ma ñëw gis fekk mbooloo mu bëri ñu taxaw fa ma ne leen waaw yéen lu xew fii ñu ni ma ci istixaar bi ñu ne ma Mawlaaye Sayyidi Mouhamed El Cheikh la ñuy xaar mooy xut bu zamaan bi ma taxaw ne tuuti lu mel ni hélicoptère naaw ba tolloog man ci côté penku ay 3 ci kaw nii benn porte ubbeeku ma séen ko mu toog ci biir hélicoptère bi toog ci benn fauteuil yorey benn yat bu weex nii ñu ne ma kii mooy Mawlaaye Sayyidi Mouhamed El Cheikh kii mooy xalifa Cheikhuna Tijaani Chérif ci kaw suuf loolu muy dalil bu leer boo xam ne amul lu ma si warante ah, muy guddi altine ma ne aljuma su ma jullee jumaa maay jiite su ma su ma paree nu ma mën def dinaa bokk moom xadara yàlla dogal ci aljuma jooju laa dem Medina Cheikh ba ma gisee ak moom bi mu ko séenee muy ñëw ba ñu joxante loxo mu fat rappelé ma ñetti gént yu ma géntoon ñeent sax mooy ki ma joxoon werd ci 1987 mhm. appartient mhm. ab jëmm jooju la ma jox ak ki ma gisoon Seydou Mansour si Seydou Mansour si wax ni ni wax ma ni ma man du ma sa sëriñ waaye kee mooy sa sëriñ jëmm jim ma joxoñoon mu jox ma ko troisième fois bi mhm. mooy istixaar bi ma def tañ woon ma ñaar ñi taxaw kenn ki féete ndaw ñu ni ma kii mooy xalifa Cheikh na Tidiane Chérif mu jox ma jëmm jooju quatrième bi mu jox ma ki ma gisoon ci hélicoptère bi mu toog keroog ba ma ñu joxanteeg moom loxo bi ñu defee xadara ba pare mhm. yëg naa ci xadara boobu lu ma mësta yëg ci xadara wasifa naa ak moom wasifa boo xam ne mësuma yëg lu mel noonu ci wasifa ba ñu bi ñu yéegee ci saal bi ñu bokk toog te bi muy waxtaan sama appartenance dafa mel ni sama appartenance yëpp la jël maanaam sama carrière depuis 83 la commencé waxtaan ba fi ma ba ni ma ñëwee ci moom lépp dégg naa ci sama bopp biñ demee ci saalam ñu bokk toog ci la ma ni cheikh ma ne la béy ko mu ni ma tarixa bi hmm? sirru tarixa bi secret tarixa bi yëpp lépp loo ci soxla laaj ma ko ma jox la ko. tabaarakallah waaw bismillah lépp loo soxla ci tariqa bi ak secret lu mu mënti doon. laaj ma ko turu yàlla lépp lu eggalan ci yàlla laaj ma ko tey ma jox la booba ba léegi nag yëg naa xam naa ne maay kan ndax yëg naa. yëg naa ci maa ngi yëg ci laasim loo xam daaw ma ko yëg di yëg ci xadara lu ma doon yëg yëg ci wasifa lu ma dul yëg tey cofeel bu ma amoon ci nit yàlla yi nga xam ni ñu bokk ci tarixa cheikh cheikh alhaaji malik cheikh alhaaji Umar Fuuti sëriñ babacar si alhaaji ibrahima ñas ak ñeneen cofeel bu ma amoon ci ñoom tey gën na yokk ndax moom ndax moom a xamal ñooñu ñooy ñam xam naa ne tarixa cheikh genn kër la cheikh mooy kilifa gi njaboot gépp ci biir nañu bokk ñun ñëpp ay taalibe cheikh lañ fa fekk wasifa demal koo gis fonk ko lii moom moo ko def ci ñun sunu làmmiñ duñ ko jëm jëm jëmale ci benn nitu yàlla te duñu wax ci moom lu rafet ak loo xam ne lu yéew la ak di sàkku ci moom leer incha allah rabbi loolu moom def na ci ñun ak ak sawar ci jaamu yàlla waahiran wa baatinan te ñu ngi yëg suñu bopp ci yàlla ñu ngi yëg suñu bopp ci yàlla yëg suñu bopp ci tarixa Cheikh na Tidiane Chérif ah, man loolu mën naa ko seede ah, fa tabarakallah maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara wasalaamualeykum wa rahmatullah ah, mbokk yi ñoo ko déggandoo leer maxli seen sanos xam naa dañuy ànd ak suñu caméraman Diazaka Tijani El Cheikh ñu fas yéene waxtaan ak yeneen mbokku taalibe jërë ngeen الأطراف العقيم والهادي إلى أطرافك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما وفق الختم لما سبق نزل الحق بالحق والهادي إلى أطرافك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما البر لما خلق الختم لما سبق من أخلاق بلاقيه وأن هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد البر لما خلق الختم لما سبق من أخلاق بلاقيه وأن هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم

الصديق يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما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 imaam al mahdi yu yor kàddu nga nel seen Cheikh Ahmed Tijani defe woon ca door bi te muy bi muy jot tarixa tijaniya ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu fekk na li ñu fi tuddoon ci wàllu tariqa li fi suufi yenn yi jotoon na liggéey ñëpp demoon nañu ba ñu ni dem mu mënatu fi liggéey lu ni la waaye mu yëg ni la mu dafa am ñu ko doon xëccoo ca kaw te muy te les prémices du Hajj de l'imam al-Mahdi c'est dans le quartier Laona que s'est tenue ce samedi juin l'avant-dernière étape de la tournée nationale de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh et qui marque la deuxième édition pour cette ville historico-religieuse de Kaolack. Cette rencontre a surtout été marquée par la forte mobilisation des disciples venus de tout le pays et qui ont vivement accueilli Khutbul Artabul Kabir au son du zikr de Allahu Nurullahi la ilaha illallah, hymne qui a illuminé le tout Kaolack. Après la wazifa du Maghrib qui a ouvert la cérémonie, le missionnaire du Grand Pôle Caché est revenu tout au début de son discours sur Maulaya Shir Ahmad Tijani et la particularité de sa formation spirituelle ancrée dans l'islam en précisant que la Salatul Fatiha et la Jawaratul Kamal ne peuvent jamais sortir de l'ordre divin car il est mentionné dans le Coran que certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Al-Ahzab, verset 57. C'est ainsi qu'il rejeta beaucoup de préjugés et confirma que personne n'est plus sunnite que les soufis. Maulaya Seydi Mohamed El-Sher rappela cependant la nécessité de différencier les domaines de la charia et les domaines de la haqiqa, car certaines réalités sont ancrées dans la haqiqa et les phénomènes raïbiques, comme le retour du prophète Mohammed sallallahu alayhi depuis l'au-delà pour octroyer le wird à Maulaya Shah Ahmed Sherif à l'état d'éveil. Maulaya Shah Tijani a formé des élus qui ont réussi spectaculairement leur mission dans l'islam et la Tijania. Et ce fil conducteur continuera jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi Maulaya Seydi Mohamed El-Sher met en garde les dénégateurs en ces termes. Ceux qui revendiquent le titre ou polémiquent au sujet du mardi devraient faire attention à ce qu'ils affirment. Sinon bientôt, en 2022, ils seront tous désavoués. Maulaya Seydi Mohamed El Cher est revenu également sur les réalités mystiques Raib Shahada et les élus d'Allah qui ont la capacité de communiquer avec les défunts de Barzakh ou l'au-delà C'est par le nom divin Ya Faradou que le prophète Issa ibn Mariam communiquait avec les morts. Et lorsque Maulaya Cher Tijani est venu, il instaura pour les saints un secret de la Salatul Fatiha. Il fatihi lima Cependant, précisa-t-il, ces mystiques ne racontent pas ces communications et informations de l'au-delà pour se vanter de leur dimension mystique. Ils le font plutôt pour avertir et mettre en garde les croyants qui sont encore vivants. Ils pourront ainsi fortifier leurs convictions sur les issues heureuses et s'écarteront des vices, sources de condamnation. La voie autorisée d'Allah subhanahu wa est aussi revenue sur l'éclaircissement d'une affirmation qui a créé la polémique au sujet du grade de Bouzamane en précisant que seul un élu du ciel peut définir qui est un wali ou non. De ce fait, si quelqu'un revendique être un Qutbouzaman, posez-lui une seule question. Qui est son prédécesseur Qutbou qui lui a transmis la fonction au niveau du Hajaratul Aswad et quel est son futur remplaçant destiné à la tâche après sa mort S'il est véridique dans ce qu'il revendique, il devra pouvoir répondre à ces questions car c'est par ce processus que le grade est attribué. aux locataires de Medina Cher d'ajouter que si quelqu'un viendrait à revendiquer le grade de Bouzamane devant moi, je lui demanderais de donner ordre au bonnet d'un tel de sauter, de même que son boubou. S'il n'en est pas capable, c'est parce qu'il ne l'est pas véridiquement, car tous les objets sont soumis aux ordres du Bouzamane et ceci n'est pas un miracle, mais plutôt une preuve. Ah, S'il est véridique dans ce qu'il revendique, il devra pouvoir répondre à ces questions, car c'est par ce processus que le grade est attribué. Au locataire de Medina d'ajouter que si quelqu'un viendrait à revendiquer le grade de Khutbouzaman devant moi, je lui demanderai de donner ordre au bonnet d'un tel de sauter, de même que son boubou. S'il n'en est pas capable, c'est parce qu'il ne l'est pas véridiquement car tous les objets sont soumis aux ordres du Qutbuzaman, et ceci n'est pas un miracle, mais plutôt une preuve. La revigoration de la Haqiqatul Muhammadiyya n'a pas été en reste dans le discours, et le calife de Cheikh Tijani nous apprendra que ce sont les héritiers spirituels du prophète qui détiennent les secrets et sciences rattachés à ce domaine mystique. Imam al fait partie d'eux. et il conduira sa mission basée sur ces réalités jusqu'à ce que le prophète Insa ibn Mariam revienne sur terre pour prier derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi a ainsi annoncé clairement le cheminement de son histoire. Dans la conclusion de son discours, il réitéra le défi jadis lancé aux religieux par le Khutbouzaman, Shah Ahmed Tijansi. Ceux qui détiennent les grands boubous et longs turbans on ne vous a pas vu dans notre réunion de la Hadaratul Ilahia. L'annonce du Hajj de l'imam al-Mahdi pour cette édition de termina cette rencontre, provoquant des frissons mystiques dans l'Assemblée. En dehors de la délégation physique qui l'accompagnera à la Mecque, certains feront le pèlerinage d'une façon mystique, c'est-à-dire que leurs âmes effectueront le rite sacré. À ceux-là, Maulaya Seydi Mohamed El Cher conseille de trouver un garant mystique pour pouvoir accomplir ce cinquième pilier de l'islam. Fass la ville historique de Seydi Hadj accueillera la dernière édition des tournées nationales de cette année ها ولد ياتي شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا يا مولاي سيدي محمد الشيقي sang yaa nu yiir ci sa leer gi yow yaa nu nandal ci Waladun Yaati shukran شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا, شكرا